alhamdulilah gannaaw ba sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan yàlla kaamil ñu fi wàccee yëpp lépp lu si yiw yàlla nañ ko yàlla boole li si Mawlana Cheikh Ibrahima Niass dëmmaloon muy teeru newet newet bu jotee bàyyi daf daan teeru di def ay kaamin di ñaan yàlla pour yàlla may ñu ndox si jàmm pour yàlla may réew mi jàmm rawatina Sénégal gii ñu nekk ndax tolluwaayu baay yëpp li mu doon ñaanal yëpp mooy Sénégal am jàmm tey nag mooy yoo xam ne ñu ngi teewee kaamin bi di ko def waxtu wu ne chaque année ñu ngi koy def depuis àllarba ba léegi ñu ngi yëngatu si mbir yi joxe joxe ay ndekki joxe ay lekk yoo xam ne dañ ko dëmmal seen bopp. dëmmal gi nag du dara mooy li ma doon wax rek ñun ay ndaw lan Baay Ñas moo ñu ñor am naa yaakaar ne sax bokk ne si ndaw ñi nga xam ne ñoo fi njëkk a taxawal aide sociale si biir fii nii si jëmale ay ndekki si gàmm wala si ay événement yooyu ñun suñ loxo moo si njëkk a nekk loolu nag duñ ko mos a bàyyi si àddina ndax népp loo xam ne lu baax la nit di ko def wala nit di ko uti mu koy utee si buntu kër sëriñam loolu référence la si ñeneen ndaw yi nga xam ne tey ñu ngi koy def ñu ngi sant yàlla bu baax parce que am na ñu bëri ñoo xam ne tey gis nañ ñu suñ tolluwaay suñ taxawaay ba ñoom ñoom it ñiy def lii kon loolu sant yàlla la ndax dañuy wax ni ne bu la nit royee si lu baax rek loolu li nga nekk lu baax la tey it ñun ñëwaat fi tey si dernier joxe si dernier jour bi muy ajjuma ajjuma nag ma juma gën a yaatal liggéey bi gën koo teg si yoon liggéey nag mais neexut surtout liggéey boo xam ne danga koy liggéey ak si sa bopp danga koy liggéey ak si sa xel danga koy liggéey aussi ak si sa moyen neexut waaye ñu ngi sant yàlla ndax Baye Niass moo ñu ko jaral bàyyi dafa ne nañuy xidma xidma moo yóbbu nit fu ne ñun ñii di wax ak yéen tey lépp lu ñu am si àddina rek xidma moo ñu ko may xidma gi ñu ko may nag duñ ko mos a bàyyi si àddina di ñaanal yàlla ñëpp ñu fi dajee moo xam ñu jugee si village yi moo xam ñu jugee si kaw gi di yàlla ñëpp kaamil ñu fi jàng yëpp yàlla def si barke ba nga xam ne ëllëgi sibit dana nekk ngëneel si ñun ñëpp mbas mi nekk si àddina bi yàlla jëlee ko fi di ñaan yàlla yàlla def si Sénégal jàmm xew-xew yeeg jafe-jafe yëpp métti na waaye mbiri na moo nekk pay boo xam ne ni tey lépp loo xam ne tolluwaay am na ko si àddina buñ ko fi ñaanee yàlla teggi ko ndax dëkk bii mooy dëkk Mawlana Cheikh Ibrahima Niass fii dañ ko dëppee Medinatu Munawwar moo tax lépp lu fi doomu aadama taxaw ñaan ko si soxla rek ñaan ko si xaajo rek yàlla dana ko fajal. tey sëriñ bi ñu gis ne association bi mu ngi liggéey si lu bëri waaye nag tënku si eh, luy dimbale jaamu yàlla yi tey ngeen def ko si at yi passé defaa ko si at mi kii ren lan nga mën a wax eh, taalibe yi nga xamante ne nii góorgóorlu wala boog mel na ni man ba yu mel nii duñ ci góorgóorlu yokkute gi si nekk lan la. waa xam nga taalibe moom digal ko dafa jafe rawatina ñun taalibe bàyyi mooy des fois da nekk ndaw nekk ndawal Cheikh Ibrahima Niass di liggéey waaye li nit ñi di yaakaar ak liñ foog dafay am uute uute yu bëri boo xoolee tey yéen ñii nga xam ne tey seen sabab yëpp Médina la am na tey ñoo xam ne dañuy jël yeneen moyen di ko yóbbu faneen te kenn gënu leen ko yelloo parce que yéen ay yéen wane lu bëri liggéey nag liggéey la nit ki liggéeyam si la jaamu yàllam nekk xidmam si la lépp nekk ndaw ñi liñ leen di ñaax rek mooy nañu ànd di liggéeyal bàyyi gis nga liggéeyal Baye Niass du ñun ñun ñooy liggéeyal Baye déedéet mënuñ ko ñun ñooy yoole seen bopp pour ñu am ay tiyaabu mu jëm si Baye mënuñoo xidma bàyyi loo xam ne ni tey ñun liñ koy defal dana ko saf si dara déedéet waaye nag xidma gin mi xidma ñun suñ jëmmi bopp la ñu xidma parce que ku mel ni Maolana Cheikh Ibrahima Niass li mu am am na ko ba pare taalibe bi nag fi muy teg tànkam mooy si diggante mook sëriñam ak diggante mook boppam ak diggante it li nga xam ne mi ngi koy wërsëgal si boppam di ko ut mu xool naka lay def ba lii mu ut nii naka la si mën a defalee sëriñam ba sëriñam kontaan ñun dun taay mukk di liggéeyal bàyyi ndax ñu ngi gërëm bu baax borom Kossy TV mu yanday ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla defal ko sutura yàlla dimbale ko ñun suñ xoolee si moom rek kenn mënuñoo tere xidma parce que moom xidma rek lay def taxaw neen taxawaayu xidma taxaw neen taxawaayu taalibe taxaw neen si kër gi taxawaayu doom si biir kër gi parce que kër gi doom lañ fi sët lañ fi si kër gi lañ bokk waaye di ñaax suñ mbokk ñeseen ñeseen yëpp ne leen ñun duun ay sëriñ ku sant ña si taxul nga nekk sëriñ waaye li nga war a doon mooy naka ngay def ba doon taalibe loolu moo gën a am importance yeneen yi si des yëpp du dara naka la ñu doon ba naka la ñuy def ba nekk taalibe moo gën a am solo yàlla nañu yàlla def ñu nekk taalibe baay yàlla nañu yàlla def li ñu taxawal aide sociale yi du tey maa ngi koy wax ñu bëri si gàmm gi na leen yàlla moo ñu jigle ñuy nekk di yëngatu si dara te li ñuy yëngatu si yàlla lañ ko natt si yàlla lañ koy jëlee li ñuy am yàlla rek lañ ko mën a delloo moo tax lépp lu ñuy def rek daneen ko def si yàlla daneen ko dolloo si seen bopp. macha allah jërëjëf si noonu la ñuy waxee ne comme ñun si daara yi ñu ngi si participer bu baax a baax te tey boo xoolee tey njàngam alxuraan toll na foo xamante ne nii àdduna yëpp ñu ngi xam li xew. tey noonu la ñuy bëgg a tàllalee suñu loxo ñi nga xam ne ñu ngi jël seen ndimbal di ko indi si biir daara yi ndax dëgg-dëgg damay wax ne Medina Baye mooy dëkk bi nga xamante ne ni lépp loo jaar rek boo dikkee fekk ko fi muy yar muy si lu mënta doon boo ñëwee da nga ko fi fekk tey nag boo doon joxe tey benn numéro boo xamante ne nii ku bëgg a adhéré wu si biir association bi wala ndimbal la wala nangam ndax baax na it yéen tamit ñu wane seen liggéey ñu wane ko si biir ko si bitim réew ban numéro lay xam nga loolu sax gannaaw gi chaque jour yaa ngi ñu koy wax oustaz pour ñuy adhérer nit ñi ubbi leen seen porte si yëpp si 619 54 54 mooy 77 619 54 54 ñun dara ñoruñu lu dul liggéey dara ñoruñu lu dul ni dimbalante ak nit xam nga tey mouvement bi mu ngi tudd mouvement laay biir askan li ëpp solo li muy def sax duñ koy génnee waaye bëri na affaire sociale yoo xam ne ñu ngi koy def te ñu ngi siy dimbale ay nit rawatina tey su événement amee si kër gi kër gi ñun fi leen bayoo fi leen saxoo lépp luñ fiy def muy suñ doole muy suñ am-am muy suñ man-man lu ñu war a def la. moo taxit it ñu ngi ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp di ñaanal yàlla taaliba bàyyi na leen lii ñi nekk nii ñu ngi siy bëgg a yàgg te alhamdulilah ñu ngi siy sant yàlla bu baax waxtu bu affaire bi dëmmalee rek am nen moyen buñ si ko demee ak luñ koy defee. loolu bu ko nit ki amee waxut ne xaarut kenn bu nit ñëwee ak dërëmam dañ ko si dugal waaye terewul ñu nit xaarun kenn ñu ngi si yoon bi di liggéey ku ñu si fekk si it ñuy ànd moom si kàttanu suñu borom voilà kii sama naataango la Fayda Tidiane ya faw moom tamit ma dend ak yow ndax gis naa ko si liggéey bi euh, Babacar Sadikh Thiam ñu nu lay nuyu. Moussa ñu ngi leen di fay di leen ziar bu baax baax tey ñu fekk la fii ñu gis ngay ne joxe mburu mi ak ndékki yeeg yooyu noonu te gis nañ comme ni ñu ko waxee sànq rek euh, groupe yu mel nii ñun média bi nekk fii war nañ see jàpp bu baax ndax nit ñi mën a xam seen liggéey ndax nit ñi mën a xam seen tolluwaay ndax ñu ngi wane yeneen yoo xamante ne nii si yeneen i média amul sens kon bu ñu yàlla booyatee ñun ñu dëkk si Mawlana Cheikh Ibrahim xew-xew bu am ñu mën koo génnee tey ma ñëw fekkaat la fi nga teg sa caméra teg sa lépp di joxe mburu di joxe ndox lu waral loolu. waaw Moussa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di am mbégte ak kontaante bu baax ci couverture médiatique bi ñu nekkee fii ci jumaa ji aadatan euh, euh, dañoo baaxoo woon doon ko def ay at at yaakaar naa war naa man ñeenti at bi ñu commencé di ko def malgré dañu yor kaamil di jàng waaye tamit dañuy dem uti ji tuuti mooy ñëw def ko ci liggéey bi dimbalee ñi nga xamante ni ñoom dañ bokk jumaa ji muy sëñ daara yi ak ñi nga xamante ni xale yi jànkaamil yi te lii dafa nekk jëf joo xamante ni lépp lu ci waay defar yàlla dina la ko fulal te lépp lu ci nit financé yàlla dina ko ko fay yàlla mën na la ko fay ci yow ci sa jëmi bopp na la ko fay njaboot may la doom ju mokkal alxuraan te loolu rek doy na doy na dooy na fay waaye ñi ngi gërëm activité yi ngeen couvrir fii ci xadara bi di am mbégte kontaante bu baax Baye moom lii yàgg na ko def gàmmu Taïba du fii rek loo koy def gàmmu Mérina doo koy def gàmmu Taïba doo koy def ak euh, yeneen activités yi nga xamante ni mi ngi aju ci xadara bi te loolu lu am solo la moment bi yi nga xamante ni gàmm day jot docteur yi nekk ci hôpital bi moo leen di yóbbul ndekk man témoin laa ci loolu ndax xam naa ci lu bari te loolu jëf la joo xamante ni dañ koy saliyee di ko encouragé ci loolu dimbale ñu def ci seen mooy ñu yokk ko ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi def xaalis ci leneen ñu ñëw jàpp ci liggéey bi nga xamante ni am na ay mbokk taalibe yu ci nekk loolu lañ ci amoon ay kàddu yoo xamante ni ñu ngi koy jàllale di ñaan yàlla ñu teewee ko ay at yu bëri di ñaanal alxalifataw Mawlaay Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass di ñaanal al imaam al akbar Seydi Cheikh mu Cheikh Ahmad Tidiane Seydi Ali Cissé kazalika Cheikh Mouhamadou Mahi Seydi Ali Cissé ñi ngi ñaanal mboolem doomu Baye ak mboolem soppe yeeg am du jàmm taalibe yëpp fu ñu mënti nekk ci àddina bi macha allah loolu lañ ci amoon. tey boo doon joxe tey benn message bu gàtt rek si ñu nekk si biir réew mi si bitim réew di dugal seen alal si leneen lu dul noonu pour ñu jàppale ñu mel nii loolu di wax. waaw di wax rek eh, nit dana def xaalis foo xamante ni dana ko mu def ko feneen ci la ci gën a mooy ëpp njëriñ dana ci am yàlla am yonantu bi nit dana jël xaalis def ko foo xam ne du ci am yàlla du ci am yonantu bi du ci am sax nit ñi ñam koy defal sax du ci am waaye da nga def foo xamante ni sa xaalis bu leen nit ñi gërëmul yàlla dana la gërëm lii jotaay bii benn la ci yooyu noonu te wax dëgg yàlla ñi ngi encouragé di ñaan ñi nga xamante ni ay ay ay ay ñi dimbale doomu aadama yi la ñu concentré wu ciy demee nii di dimbale daara yi surtout di dimbale taalibe yi ndax ñoom ndimbal amul jëlewuñ ko fen amul kenn kuñ mën a wax koo xamante ni da leen di dimbale te ñooñu soxla nañ ci ñoom ay ndimbal yoo xamante ni dañ koy jëmale ci daara ji ndax loolu rek mooy liñ soxla ci ci ci ci daara yi ku leen dimbale rek lañ manqué ñi ngi ñaan yàlla daal yàlla nekk seen ndimbal balaa balaa dara da gis nañ ne ndimbal yàlla ci nekk sax moo tax mu egg si lañ ci amoon lu ñuy wax salaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah ba Cheikh Baye kaddu gu mujj bi waaw maa ngi santaat yàlla bu baax man li ma waroon na njëkkee sax moom laay mujjee mooy maa ngi gërëm xalifa bi bu baax di ko ñaanal yàlla di gënal imaam di gërëm sama nijaay Cheikh maa di gërëm sa ñaax ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax yàlla yàggal leen fi yàlla bàyyi leen seen kanam xam nga oustaz na taaliba bàyyi di dimbalante ak waa dëkk bi amul dara lu du alquran sëriñ daara yii dañ leen war a taxaw bu baax a baax a baax a baax ndax sëriñ daara buy jàngal alquran internet daaram mën na gis ku ko fay mën na gisul ku ko fay te dëkk bi ñu fi dajee ñëpp ay mbokk ñun ñi nga xam ne yàlla mi ngi ñuy dimbale di ñu suturaal dara nañuy dimbalante seen biir bàyyi ñes dëkkam bi dimbal dimbal rek la ko ñegee woon ku tene sa morom dimbale sa morom wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi gërëm di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu teewee déwén ba defaat lu gën a raw lii ñi ngi am yeneen événement yu ñuy xaar incha allah dinañ ñu ànd ak Faydu Tijaani dinañ ànd ak Kossy TV liggéeyat ak ñoom ak Medina Baye TV Medina Baye TV ñoom ñëpp liggéey ak ñoom ba nga xam ne mënuñoo am lu leen lu leen sut bu ñu demoon Dakar yi soxla média dañ siy fay xaalis bu bari loolu dama leen koy leeralal tey moo tax ku ngeen di def ak dara rek bu mu jàpp ne li ngeen di def amu leen si cër déedéet ñun ñii si média la nekk te xam neen média da ngeen a daw ba sonn da ngeen di def lu leen lu ngeen mën ngir seet lu neex pay bi kon ñun ñu nekk si pay bi di liggéey nañ leen jox bopp nañ leen dimbale te bu soobee yàlla incha allah daneen taxaw si loolu yëpp daneen liggéey ak yéen daneen taxaw dimbalante ak yéen si lu ñu yàlla may ak lu ñu yàlla mayit bisoo salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokku téléspectateurs yi la mooy kàddu yi nga xamante ne ni euh, association bi andi na ko ci ndimbalu daara yi waaye dama koy wax rek ne gis ngeen image solo yii nii ngeen gis xale yi di jël xéwal yi tey am nañu xale yoo xam ne bi ñu ñëwee ànduñu ak seen seen daara dañuy dégg ne tey daara ji ñu ngi jàng kaamil fii si jumaa ji rek ñu ñëw ñëw seen bopp ñëw fu ne beneen bi ki nga xamante ne mi ngi jóge ko ba tey ba seen wala kër Abib wala beneen dëkk wala Caameen wala feneen kooku tey bu fekkente ne mi ngi ñëw bëgg a wéeru si benn kër ak daaraam ji ak mbooloo mi day métti kon tey dëgg-dëgg baax na euh, ndimbal yu mel nii di ñëw si biir jumaa ji di leen ko jox kontaan nañ bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëgeen jëf